waa asalaamaaleykum mm, waa internet 28 pro ku si nekk maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant di nuyu sunu xalif général sëñ Mountakha di nuyu aussi tamit xalif général des Baye Fall ak bépp xalif généraux bu nekk fii si senegal rek maa ngi lay nuyu di nuyu askanu Sénégal gi yëpp di leen xamal ni dafa am benn émission bu bees boo xam ne dañ koy mi ngi tudd ko tons ngi koy def ak waa 28 pro. et puis di si invité ay ndaanaan waaw di ci invité ay ndaanaan premier euh, numéro un bi ñoo ngi invité njànku deux bu Mbàkke kon njànkul la ni la lay bàyyi nga nuyoog askan wi ak nuyoog internet bu 28 pro bu ko defee ñu soog a tàmbali émission bi. oui tons maa ngi siyaare bu baax a baax a baax di la nuyu bu baax a baax di nuyu euh, képp ko ñuy seetaan ci seen bu mag bi nga xamante ne mooy 28 pro. di leen bëggee bu bëri lu ba lu baree baree baree bari bari di sant gars yi yëpp nag di gërëm waaw. waa jànku euh, dama bëgg ñu démarrer émission bi xam nga da nga defoon benn euh, programme. def defe naa le 22 bi passé la. ma bëgg ñu waxtaan avant ak après. Mm-hmm. avant programme bi ñu waxtaan si après programme bi ñu waxtaan si. Mm-hmm. Euh, ni ñuy waxtaane si avant programme bi mooy que. Euh, bi mooy seen première édition wala bi mooy bi passé ni mooy seen deuxième édition waaw Tons voilà may ñëw ci question bi damay profité rek sant képp koo xamante ne jàppoon nga ci bis bi waaw muy muy suñu programme bi ngay wax képp koo xamante ne jàppoon ci bis bi maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ñi teewoon ak ñi amoon yéene teew te mujjuñ teew ñëpp maa ngi leen di sant di leen wax ne kontaan naa waaw Tons euh, programme bi mooy deuxième édition bi waaw bi mooy deuxième édition euh, est-ce que avant ngeen di def programme bi maanaam ñi leen ci jàppale ñëpp ñëpp ñëpp soit yéen yéen a am seen fond wu bopp boo xam ni seen kees la ngeen def si seen programme wala aussi it dangeen ngeen ko yaakaaroon ci nit ñi waaw programme bi programme bi moom bëri nañu si jàpp ndax boo boo boo booy def mbir te am ay nit yu baax il faut ñu jàpp ci waaye nag ñun dañoo xaw a tàmm benn affaire muy euh, ndimbal da ciy fekk loxol borom waaw loolu moom ñun tàmm nañ ko ba ba yàlla dogal na avant ñuy dem si nit pour mu jàpp ñu wala avant nit di ko di ñëw di ñu jàppale fekk na ñun ñu defoon ci suñu fond bu bopp ba commencé lu baree baree bari bari mais nag bëri na ay ñu jàpp bëgguma lim muy kii ndax ñi si jàpp bari na mais képp ku ci jàpp maa ngi lay sant ndax bëri nañu ci jàpp baax a baax a baax a waaw bi si des mooy euh, yéen seen troupe parce que man dafa am loo xam ne tamit xool naa ko fii maanaam avant seen programme bi da ngeen euh, comment dirais da ngeen amoon benn création yéen joué ngeen wala joué wu leen parce que des fois damay xool gars yi. Mm-hmm. des fois dañuy am ay invité mm-hmm. di njëkkanteeg ñoom di xëccoog ñoom maanaam scène bi mm-hmm. parce que ñoo organisé parce que boo xoolee. ñii ñoom bu ñu yéegee bu ñu defee création yéeg presque ñoom ñoo jël temps bi yëpp. waaw dina si am invité yi sax ñoo xam ni maanaam du ñu am jotu joué ndax temps bi nga xam ne yow parce que man ni ma ko gisee mooy que yaakaar naa ne bu fekkee da nga invité ay nit. Mm-hmm. invité ay troupe mm-hmm. yow bis bu ne nga joué bis bu ne nga répété. yaakaar naa da ngay dalal say gan. s'il le faut sax yow. boo mënee nga bañ a joué sax say invité joué xam nga foofu mooy que tey say invité bu ñu joué wul yaa leen indi ñibbi nañ joué wuñu dem nañu ak mer vaut mieux nga xañ sa bopp moo gën ngay xañ say invité kooku est-ce que noonu ngeen ko doxale non ñun moom yàlla yàlla dimbal nañu si côté boobu noonu amoon nañ création boo xamante ne nag maa ngi maa ngi maa ngi sant bu baax si laa Sylla Sylla comédien maa ngi bëgg gars yi bàyyi ko xel daanaan a ngi noonu création boobu moo ko bind. ñu waroon ko exposé foofu noonu ci ci jour programme bi mais man avant programme bi ma xoolee samay invité damaa xam ne création bi mënatu fee nekk. damaa teel a retiré wax dëgg yàlla suñuy invité lañ bàyyi ñu def ñun defuñ dara. benn benn ñaar ñaari nit laay wax. ñoo fa pressé wut te ñoom am nañ compréhension xam nañ ne programme bi moo tëddee noonu. muy Lamp Thiam ak Matar Thiam samay grand frère lañ ku nekk xam na leen au niveau de Baol ma leen di leen gërëm nag ñoom yëg-yëg bi ñu am ñëw li am tamit bi mu amee compréhension bi ñu am ba ba xamal ma ne ma lii nii la mënoon demee parce que yëf yi moo xat maa ngi leen ciy sant di leen ci gërëm waaw ñaar ñooñu ñoo fa joué wul. waaw ñaar ñooñu fa wul sax te ñaar ñooñu tamit dama ciy wax lu ndaw parce que artiste rek mooy doxalee noonu mooy am compréhension. Mm-hmm. mais képp koo xam ne da nga dem ci euh, événement bu la invité ngay artiste joué woo nga mer rek xamal ni. sa doon artiste des na mm, mm. parce que da nga teg sa place yow bu fekkoon yow yaa ko organisé mu xat place boobu ngay jël nga teg ko foofu waa bi si des mooy <clears throat> programme ba bari woon na nit waaw loolu programme bi moom bëri woon na nit moom wax digg yàlla man xawma kan mooy kan mooy woote nit ñi di ko bañ a wuy si wala kan mooy woote di sikk public am mais man man bokkuma ci man sama public wuy si nañ wax dëgg yàlla sama waa koñ génn nañ maa ngi leen di sant bu baax baax waa Mbàkke Bawol génn nañ waaw xam nga des fois damay gis si des fois yenn programme yoo xam ni euh, dañuy filmer rek benn côté ndax côté boobu fa la nit ña nekk beneen bi doo fa dem beneen bi doo ko filmer ndax moom boo ko filmer mooy loolu day man genre stand-by mooy nekk ci beneen côté bi benn vision rek ngay am mooy côté bi nit ñi nekk ngay filmer beneen bi nga nëbbu ko loolu dong ngay wane ba loolu dalu leen ci programme bi non ñun moom suñu programme tons bawal ku nekk xam na ne bawal benn cat lañ am mooy soo soo demoon commandé ji siège yi gën a rafet si àdduna bi si monde bi siège yi gën a rafet boo ko commandé woon ñëw teg sa programme nit ñi dañ koy bàyyi ne taxaw bawal loolu seen habitude la loolu moom xasuma leen mais ñun ñoo mel noonu man sax maa ngi ci biir mais nag ñun 250 sièges yi ñu loye woon ñi taxaw ñoo ëpp ñu toog ndax bëri na ay artistes yoo xamante ne ñu ngi bawal fii ay tiktokers yi nga ñu ngi bawal fii bi ñu ñëwee dugg si biir bi te xat moo ko waral ñun moom yàlla teral nañu ndam wuñ nag mais nit ñu wuyu si nañ tamit ñun dañoo xaw mën a taxawaal tamit dañoo mën a dem ñun ko woote ñu ñu ku wootewul sax ñu demal la moo tax bu ñu wootee yàlla dañuy dimbale euh, wax dëgg yàlla moom fees na ma ciy sant ñëpp nag di wax ne du man sunu borom la waaw maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. waaw Ndiankou cher internet 28 pro waaw seen émission bu bees ñu naan ko Kër Tonks ñu invité tey Ndiankou 2 bu Mbàkke Euh, di waxtaan ak moom ci maanaam seen programme bi nga xam ni passé na ñuy waxtaan ci avant ak après xam naa sûrement après tamit dinañ waxtaan ci projet yi waa njàng euh, tey dañ ne njànku 2 est-ce que tey jii sa bopp mi ngi ci maanaam nga indi beneen personnage boo xam ni di nga fi jële njànku 2 indi fi leneen waaw tons loolu moom damay wax gars yi damay sawar di ci wax bu baax a baax a baax a baax dëgg la nag lu jafe la gaa yi ma koy wax ndax borom personnage bi moom ko njëkk a wax lu jafe la nekk ci personnage ba am ci profil ñëpp xam la ci bëgg la ci nga bëgg ko bàyyi ne ci beneen loolu problème la boo mën ngaa rey personnage bi jël beneen personnage du dund waaw moo tax nag yàkkamti ci ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey am nañ personnage bi ñu ngi ciy liggéey di ci liggéey di ci liggéey bu ñu demee ba gis ne rey nañ ñànku bi ba mu dee dinañ tege ñànku bi ne liggéey ci personnage bi. waaw personnage boobu njànk nga ni da ngeen si liggéey. te aussi tamit euh, muy loo xam ni yéen yéen a ngi kii waaye damay bàyyi sax kumpa gi ndax man personnage bi maa ngi moom sama téléphone dama la doon posé question di xool rek ba xam nan ngay def <laughs> mais dama ko naroon a génne jox ko cameraman yi ñu fësalu ko mais dama koy def surprise bàyyi ko gaay yi ah, ah, waaw dama koy denc bàyyi ko bàyyi bàyyi ko gaay yi mm-hmm. Euh, njàngu aar bi neex na mbàkke walla naqare na mbàkke parce que d'après man nii ma gisee aar bi nii doy na waarte waaw dama naan mbàkke sax ak Touba. waaw loolu moom tons naa ko ko wax àdduna ngànk la mais aaru mbàkke moom doxut doxut ñàkk dox gi nag du artiste ñàkk dox gi du artiste mais ay jàppale amuñu ko waaw loolu moom man leer na ma ci côté cinéma bi ci côté théâtre bi doxul. waaw njàng ko c'est vrai wax nga dëgg parce que boo maa ngi eh, di nuyu sama frère sama xarit ñu naan ko Ndonga Fall moom lu ne daj na ko ci aar bi parce que kenn jàppalewu ko loolu man xam naa ko parce que yàgg nañ ci waxtaan si ay moyen boppam lay dem ak ak ay turubam. mook turubam yëpp si moyen boppam la ñuy dem parce que li problème bi mooy que ku ci ñëw rek danga ko see fekk muy si xam-xam muy si doole muy si financement muy si lépp te loolu nga wax noonu dama la koy nangul parce que am na it ñu bari ñoo xam ne ay artistes wala ay troupe yoo xam ne ñu ngi mbàkkee li ngay jooy loolu la ñuy jooy léegi maanaam li tax nit ñi duñ leen dimbali li tax autorités yi duñ leen dimbali maanaam si ban côté la si yéen la wala si autorités yi la yéen yéen a war a wane loo xam ne ñoom boo leen bu ngeen leen woowee ñu ñëw wala yéen yéen a euh, demul si seen euh, côté yi wala yéen da ngeen leen a wan wala da ngeen a dem woo leen wala da ngeen a dem wax leen seen soxla ñu téye seen bopp wala lu xew. waaw loolu moom tons man dama ci jël misaal ci sama bopp rek côté li ma dund man li ma dund moom laay wax te xam naa ne li ma dund di ko jàmbar moom la samay morom jàmbar comme que li li ñuy wax naan exemple danga nga koy jël si li la gën a jege sama programme bi moom a gën a jege bëri na ay ñoo ay kilifa yoo xamante ni ci dëkk bii nii ah, ñu war a mën a jàppale jeune su Bawol lañ ku ci nekk dem naa ci yow bind la lettre te lettre bu amul retour lettre bi amul retour est-ce que aussi tamit lettre bi ngeen yóbbu am na pour poursuivre parce que bu fekkee que ni am na ñoo xam ne tey jii da nga leen euh, yónnee lettre euh, te toppatoo si tey doy waar parce que li problème bi mooy que bu fekkee am na poursuivre yaakaar naa ni retour dina am mais bu fekkee da ko yóbbu di xaar ñu lay woo wala nga ko yóbbu di xaar kii yaakaar naa du am parce que nit ñi toll nañu foo xam ni. fàtte yi dafay bari fàtte yi dafay bari est-ce que yéen doon ngeen pour poursuivre lettre yi ngeen yóbbu wala dangeen ko joxe rek di xaar. non lettre yi bëri na ci yoo xamante ne ndaxte lettre soo demandé su fekkee ne ci côté programme bi la dañ doon demander aide pour ku ñu jàppale ci côté financement bind suñu lettre envoyé diw troupe théâtrale zone du Baol mooy mooy def activité am nangam ak nangam ak nangam ak nangam def numéro de téléphone di déglu déglu ay quelque temps kenn wootewul dañoo yónnee demal naa sama bopp këram ci kër ñenn ñi fekkuma la fa ñenn ñi fekk naa leen fa ñu ne ma baax na maa ngi ciy bàyyi xel ba bii te lu mel noonu moo topp samay morom beneen bi ci côté cinéma bi gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëw def def def def pilote tey préparer say tournage bind sa scénario bu bu am valeur nag bu am importance invité sélectionné artistes yoo xamante ne artistes yu doy waar lañ fu ñu joué gars yi bëgg leen nga dëkk bawol gi laa wax def sa pilote di wër partenaire doo ko am bawol gii nii dem dem ci biti fay fa cent cinquante mille ci benn quinze épisode moo leen gënal fay fii nii trente mille ci benn quinze épisode jàppale wuñu kenn bawol fii moom na ma na nañ xam ne talent bu fi génnee talent bu fi génnee toog boobu amee fi li mu fi am dem ba ñu koy tudd ci théâtre na xam ne kooku dee na te nañ ko nañ ko ñaanal ah yàlla yàlla gën koo yokkal teraangam te xam ne lim lim lim daj si bawol du ko du ko du ko mës a noppalu waa li waral nag li waral gars yi buñ buñ buñ buñ nekkee ci affaire yi nekk ci muy metti nekk ci muy metti ba benn instant ñu génn dem ci biti seen sens jaaree fa ñu tàkk ñu naan waa daa xeeb bawol daa fàtte bawol lii la parce boo xalaatee li nga doon dund bawol après doo bëgg nag waat ñëw toogaat bawol gis nañ ko fi ba taay artistes yu génn dem commencé nekk yenn niveau yi gars yi naan wax daa fàtte fi mu dëkk lu tax mu xeeb Bawol mu retourné wu Bawol ñëw rësaat nekkaat fi mu nekk gars yi dañ ñu koy xasee dañ naan seen dëkk bi mooy suul ndaanaan. waaw gis nga <coughs> man dafa am benn seetlu boo xam ne dama ko seetlu mooy que est-ce que fii aussi tamit gars yi des fois euh, dama si waxtaan ak sam benn xarit benn jour. Mm-hmm. bi ma waxtaaneek moom euh, mu ne ma man. gaa yi dama leen a yàgg dimbali mais duma gis dara. peut-être mu ngi dimbalee ñoo xamante ne gis dara mais am na ñoo xam boo leen jàppal ataaya ji. merci beaucoup. am na am na ñoo xamante ne ku leen dimbalee gis parce que artiste bool yi ñi fi nekk en activité jamono ji moom ñu ngi dem seeni moyen bopp di liggéey kuy dem ci ay moyen boppam di liggéey kooku soo ko jàppalee mu liggéey. avant tout naanaa sa na. xaar ma ñam ba pare. Ah. bala neex na ma. non man maay wax yaw waxu goo neex na de man maa ñam ne neex na man maa wax. Ah, neex na de. waaw <laughs> sañ a ne naqari na ah, hmm. sañ ma koo wax. Hmm, kon da ngay jóg plateau du def naqari. naqari. kon de kon de neex na naa bi si des mooy gis nga loolu ma la wax léegi dafa am koo xam ne maanaam bi ñu si waxtaanee da daan dimbali artistes yi. ko am série wala ngay def ay sketch boo demee mu yëkkati xaalis jox la mais après da du gis dara du gis projet bi wala artistes yi du ñëw rendre ko compte maanaam maanaam tey ji projet bi maanaam maanaam comme buñ ko tourné nii maanaam moom du dox boog ba seetaan ko fenn du dox boog ba dégg ko fenn mais dinañ ko tourner. danañ ko tourner ba mu jeex. ba dawal ko tamit. mais après dañ koy denc ci turaal yi. waaw loolu nag problème mu tamit nag suñu équipe technique yii nii label yi ci lañ bokku de tons tons label yi bool na ma yàlla jégal ñoom ñoom it ñoom coow lu coow lu ñoom damay xuloog ñoom rek 28 pour daal laa ci gis man xanaa man ñoo xamante ne moom moom macha allah. ak sama benn grand bugguma tuddu turam waaye dangay ree ba tas labeli fii dangay ngay tourner gars yi ba pare ñu naan la sama ordinateur dafa nii dafa nee dafa nee dafa nee ah. euh, euh, li nga wax sax euh, c'est mais kooku moom. Mhm. pour te dire looloo taxal nangatu la sponsoriser bépp tayaat fii. waaw parce que man dem naa ba ci moom posé naa ko question boobu. te incha allah ci kàttanu yàlla. Mhm. dinaa ko indi mu toog fii nga toog mu expliquer lépp ñëpp di dégg. waaw waaw yow de sa émission bi Kër Tonce la te lépp daa war a leer. day leer naa ñëpp di dégg bi ci des mooy. Mhm. Euh, am na loo xam ne il faut que ñu waxtaan si mhm. moo ko projet yi fan la toll. projet yi. waaw projet yi. xoolal boo ma wax ma rekk <laughs> non projet yi moom incha allah taxaw na taxaw na yaakaar naa semaine bi bu ñu ko génnee semaine bi ci toog dinañ démarrer liggéey moom bi ñu nekk nañ bàyyi gars yi ñu dallu réunion waat defaruwaat mais semaine bi ci topp dinañ liggéey boo moytuwul sax 28 projets yi lañ ciy àndal. Ah, amin amin amin avant ñuy àgg foofu kay mooy boo xoolee maanaam euh, tournage yeeg yooyu yi ngeen di def ak yooyu. fii am nañ problème mu jigéen ba amu leen problème boobu. bu baax donc. fii. xam nga man man dof laa il faut ma kaas sama sama sama sama. yaa booy yi nekk boobal maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla bàyyi leen njaboot gi ñu def théâtre ñi bëgg a def théâtre bàyyi leen ñu def théâtre xanaa su ma ko jooyee fii dinañ ma dinañ ma déglu. noo xam nga la prépa man des fois des fois li may wax mooy que maanaam danoo desee xam li ñuy def. waaw waaw waaw loolu ci la. donc loolu damay arriéraat ci sama programme bi sax bi ma gars yi naan ma am nga capacité yóbbu ko théâtre Verdi nee naa leen xam naa ko waaye defee ko sama koñ bii nii mu nekk plein air dafa maa gënal ndax mag ñi buñ génnee xam ne seen njaboot gii nii li ñuy def du caaxaan quoi ñu xam ne ñii ci lii lañ nekk parce que mënuñ ñu gis chaque jour ñuy ñuy soltu ni dem salle ñu ngi répété tëba tëb gi samp ay caméra ñu ngi tourné parfois ñu ñam ko nag ci ay seen théâtre yi xam ne ah diw dee ngi diw dee ngi mais xamuñ dëgg dëgg dëgg njariñu théâtre waaw aussi tamit loolu dafa dafa am ba pare bi ci des mooy euh, comme ni ma la ko waxee rek mooy que lii nii muy li ñuy def parce que toujours dama koy wax mooy que dañuy yaakaar ni lii foofu la fo parce que li tax man ni dañuy yaakaar ni lii fo la lii métier la waaw métier la comme tous les métiers parce que métier yëpp dañuy def formation bu ñu defee seen formation bu ñu paree dañuy yor seen diplôme dem liggéey yi ñu leen di fay théâtre bi métier la dangay def formation boo paree sa formation ñu jox la sa diplôme boo paree sa diplôme nga dem uti si liggéey ngay liggéey ñu lay fay chaque weer wu dee. ak bëri ay poste sax métier mu ay poste non dan la ciy fay chaque weer wu dee ñu fay la te bi si des mooy. mën nga métier bi mën nga am mën nga bañ a am sax diplôme mën nga bañ a def sax formation tey jii nga joué si dara. sunu borom may la si tur nga daal di si am ay fan. waaw benn nga gis nit ki mu neex la ngay joué mu neex la mu yëkkati. mu yëkkati 1000 euh, francs jox la hmm. fayeeku nga. Hmm. mu yëkkati montre jox la. yaa ngi fay yeeku mu yëkkati ay dàll jox la yaa ngi fa yeeku ci théâtre muy parfum muy ay yëre muy lépp bu du woon théâtre bi tey kooku du la ko defal kon xam nga tàmbali ngaa fa yeeku ci théâtre loolu loolu tons dagguma la loolu dafa ma arrivé benn jour dama damaa yéeg saret dem jóge chantier di ñëw sama sama fond d'écran jour boobu sax laa bàyyee def loolu sama fond d'écran dafa am sama benn photo bu ma solee woon tenue daf maa neex ma defoon ko fond d'écran am ku ma duggandool seret sama benn grand bu ñuy wax Mbaye Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu gis profil bi mooy xoolaat di di kii di ma xoolaat maa ngi naan sama xel grand bi lan la may xoolee mais bi ñu demee bay wàcc mu ne ma frère kii yow la ma ne ko waaw mu ne ma oh <laughs> ne ma frère man yow rek laay bégee kontaan ma xam ñuy waxtaan noonu bégee ma ne ko man tamit maa ngi lay bégee jox ma sa numéro man maa ko njëkk laaj numéro moom jël numéro ñu bégee wante noonu bi ñuy wàcc mu génne ñaari junni tons bankal ma sama loxo musuma musuma musuma lekk ci théâtre dara jour boobu la ma théâtre fay fay gu yomb googu noonu mu génne dix mille francs jox ma ba pare fay sareet bi ñu ma àndaloon ñëpp spectacle lañ jóge woon su ma juumul waaw tournage tournage lañ jóge woon tournage lañ jóge woon xaw faa guddee noonu ñi ma àndaloon ñëpp ci sareet bi moom moo leen fay ba pare génne dix mille francs bankal ma moo tax comme li nga wax ne théâtre dalay fay ndax nit mu nit mën na laa gis bëgg la artistes yi ñu ngi koy ñu ngi koy dund gaa yaa ngi leen di woo ku ni tons dina woo benn ñaan sama kër tey la nga ñaan ko ñëw toog di waxtaan ak moom rek mu bëgg ngoon jot muy ñibbi mu teral ko jox ko teraanga ju bari du du caaxaan daal nañ xam ne métier mu doy waar la te euh, fayam amul prix ndax yenn métier yi dangay toog sa bureau di liggéey ah, yaa ngi xëy yaa ngi wàcc mais da ngay da ngay xam ne weer bu dee temps ngay fayew théâtre nag xamoo weer bi su dee lan nga si mën a gañe léegi bi si des mooy maanaam euh, dafa bari loo xam ne tey jii yow da ngay da ngay da ngay élève mm-hmm. euh, di def tayaat am nga maître mm-hmm. am nga maître am naa léegi maître bi nga xam ni moom nga am mm-hmm. tey jii maître boobu tey nit dalay soxla nga dem defi euh, benn téléfilm la lay la lay soxlaa wax ko sa maître sa maître na la demal nga dem yàlla may la doole joo xam ne ci film boobu nga siiw si xeetu siiw boo xam ne doo xam fu mu jóge doo xam fan la jóge léegi yow nit ñi commencé di la nga 1000 francs yi dàqante 5000 yi dàqante téléphone yi dàqante dàll yi dàqante ak lu si mënt nekk rek yow fi mu nekk nii yaa ngi au top faaleetoo sa maître yow fi mu nekk nii sa maître li jënteetoo ko pour yow yaa ko ëpp xam-xam yaa ëpp sa maître xam-xam te fekk que yow àggagoo fenn lii dalaa lii dalaa feeñal rek parce que téléfilm la mais dafa am ñoo xam ne tey dañuy siiw di diiranteeg seen maître yi mbagg yaakaar ni mën na noo jàngal seen maître yi fekk àggaguñu fenn loolu dama koy gis. bëri na bëri na. dama koy gis. loolu aussi tamit. Euh, bari na si artistes yi torop waaw waaw loolu moom man toos damay wax képp koo xamante ne yaa ngi dund lu mel noonu xalaataatal nga arrière ci bi ngay ñëw ñaan la nii ngay taxawee nii nga war a doxee ci seen nii ngay déplacé caméra bu sampee fii mooy sa direction loolu loolu kuy def loolu man loolu laa lay wax dama naan la suuraaleel ci ginnaaw bi ngay doog a door ñu lay orienté nan nga war a def boo xalaatee loolu di nga xam ne kii nii aw ma fayam ba koy diir mbagg parce que boo xoolee loolu moo fi am léegi parce que bëri na li ma gis mooy que am na ci ñoo xam ne kenn maître yi bu ñuy wax dootu faaleetuñ leen. parce que luy indi loolu mooy que comme ni ma la ko expliquer rek euh, si comment dirais waaye euh, euh, téléfilm yi. téléfilm yi suñu def tey jii nga siiw yenn siiw yi. waaw gis nga bébé Fall li mu la indi ay neem la ak ay keek ak yooyu. waaw. man man man man bébé <coughs> jox na la attaaya. indi na la lii. nee na dalay teral. man kay moom kay. kon li ma la mën a mën a xamal mooy que. Hmm? émission bi yëpp. Hmm? ay teral la. waaw teraanga la ba keroog muy pare. émission Kër Tons teraanga la bu ci tegee teraanga day gudd. Ah. nan ko ba def teraanga dina doon surprise rek. voilà bala cee catat dugg. waaw. kon nañ yem ci bi si des mooy euh, gis nga tey jii euh, am na ñoo xam ne tey jii dañuy am tur fii génn dem si biti parce que dama ci remarqué artistes yu bëri génn dem si biti su ñu demee si biti fàtte nañu seen diiwaan fàtte nañu ki leen jàngal fàtte nañu ki nga xam ni moo moo def tayaat si ñoom fàtte nañu tamit tur bi ñu amoon fii population bi nekk fii jox leen yenn tur ak leen au niveau bu ñu demee fàtte nañ ñoon ñëpp xeeb leen dootu ñu waxate lu jëm ci bawal xam nga lu ñuy wax niveau ba nu nekk bu nekkee Dakar waa dakaar la ñuy waxal la nekk ci ñoom dan naan waa dakaar ñoo ko def ci ñoom bu ñu nekkee ci beneen région même chose su ñu demee nag ba nga xam ni tak ñu daldi ñëw daal fii daal di euh, basé wu waat fii bëgg a recommencer à zéro kooku du dem. te aussi tamit dafa am loo xam ne tamit surtout seen classe gi yéen ñii sax laay wax ah, seen classe gi. am na loo xam ne tey boo la ko suñu borom joxee fii au niveau du Bawol nga nekk fi suñu borom jox la ko. Mm-hmm. maanaam da ngay fonk sa population fonk ñi nga xam ne ñoo la yëkkati sa kaw. gis nga fii boo fi siiwee am ñu jógee Dakar jël ci la yóbbu la. Mm-hmm. gis nga limon limon gis nga ko boo daggee limon dan lay nal ba sa ndox jeex ñu yëkkati la tegle fee nga ñibbisiwaat fii dootoo amati njariñ d'accord mën nga siiw fii mais bu mu tax nga dem taf taf taf rek amagoo dara rek dem Dakar parce que li problème bi mooy que ñu si bëri bu la gisee nga siiw dañ lay uniquement bu la jëree du question lenn mais dañ lay utiliser utilisation ba bu jeexee dan lay jàllax boo dellu si waatee fii nag lan ngay wax sa population bi la yëkkati woon dootoo leen amati. waaw man moom tons tons loolu lool man damay sawar di si wax ndax man population Mbàkke Bawol waxuma la keneen di xool ne man fonk naa leen mais ñoom xam nañ man fonk naa leen waaw moom gisuma lu may jaral di génn di xeeb Bawol gii nii su ma su ma fu ma mënti nekk man du aw ma aw ma sax complexe que ne bawal bawal laa tam mbàkke laa dëkk waaw bañ naa ko ba ñànk numéro 2 bu mbàkke laay def loolu moom aw ma ci kersa samay vidéo man samay vidéo sax may def annonce yu demee noonu wala may defal nit vidéo dangay ngay dégg samay parole ma ko siy waxaale gars yi dañaa waa baal di wax loolu yow am nga profil ba pare gaa yi xàmmee nañ la mais mais ma tudd bawal sama fierté la waaw loolu moom yàlla teral na ma si te gisuma fu may yegg wala yenn niveau yu may yéeg ba tax may fàtte que ne bawal laa dëkk incha allahu rabbi maa ngi ñaan li li may ñaan mooy ma dem nekk au top mais su boobaa su ma ko mënee damay ñëw dundal théâtre bawal mais duma ma ko woon ginnaaw. waaw euh, loolu nga bëgg yal na la ko suñu borom defal ci barke Sëñ Touba mais xam naa ne waaw. Mhm. am nga succès am nga succès. Mhm. nit ñi xam nañ la fii nii surtout Bawol. xam nañ la mais man li ma jaaxal mooy lan moo tax ñànku deux yow nan nga tudd dëgg xaadim pourquoi pas xaadim deg si sa leneen mu gën a neex genre mais pourquoi ñànku deux bi yow da nga bëgg ñànku ba ba ba mu jaral la nga tudd turam deg teg sa deux walla lan moo ko waral quoi wala li nga koy roy moo tax comprenduma daal lan moo tax deux bi deux bi daal. tons waaw maa ngi ma bébé faa bébé faa borom teraanga moom posé na question bu am importance waaw waaw ñànku deux bi nag soo ko gisee dama naan gars yi euh, amour bu ma am ci ñànku la waaye tamit aw yoon bu gën a gaaw la waaw dama ko wax benn koo xamante ne bëgguma tudd turam ku siiw la ci théâtre foo ko tudd ñëpp xam ko mu ne ma bul def bul waxati lool ndax loolu dañ mel da ngaa bëgg yomb ma ne ko bëgg lu yomb ak xool lu gën a gaaw nga def ko bokkul ñànku 2 bi bëgg naa ñànku ba suivre ko moo tax ma mën a copier ñànku mën ko imiter normal mais tamit gëm théâtre bëgg théâtre te xam ne yoon bii su ma ci jaaree dina am profile ëllëg su ma changé personnage pour ma jàll dina gën a yomb dugal na ma ci di roy ñànku waaw ñaar yooyu tax na ma ndax bëgg ko moo tax ma suivre ko moom dama ko bëgg carrément moo tax ma koy seetaan ba mën a copier li muy def mais nag loolu rek téewuma ci may dem di imiter ñànku dama xam ne yoon la pour ma pour ma imiter ñànku ñëpp xam ma ma liggéey beneen personnage ba fay ba ba rey ñànku bi continuer ci personnage boobu noonu waaw. waaw xam naa euh, fi mu ne ñu ngi suñu cëggal guy euh, émission bi yaakaar naa ni juróomi minute moo ci des xam naa dama lay bàyyi rek nga tàggatoo gaa yi ak ñi nga xam ne tamit aussi tamit man euh, da nga leen di nuyoog yooyu yëpp daal bu ko defee après ñu waaw tons comme ni nga ko waxee rek damay dama la dama lay sant gërëm la di di di sant bébé faa borom teraanga waaw moom nañ ko tuddee borom teraanga sax bu leen wax bébé fa day leen borom teraanga <laughs> waaw di di di di sant rek képp koo xamante ne comme ni ma ko waxee woon jàpp nga ci bis bi am na ñoo xamante nag faaw ma tudd seen tur ndax bis ba dama dama leen a sargal sax. may naa la ko. ta li tax ma sargal leen euh, waxuma ko foofu ci bis bi ndax bis bi xatoon na xat boo xamante ne yenn discours yi mënu fa woon am. yow mi sax xam naa ne waroon nga faa yëkkati kàddu te mujjul antu euh, xataayu bis bi moo ko waral mais Awa Demba ak mère Ndeye bint ak mère Bousso Mbeng li tax ma sargal leen man maa ko xam waaw dañ maa ji teraanga euh, xale su nekkee ci benn affaire am côté yoo xamante ne loxoom jotewu fa yow mi mag nga yootul ko ko jox ko ko yoon la su ñëpp teewee mu sargal la bañ xam ne kii jàppale na ko ndax man ndongoloo moom ma yàq ci loolu daf maa wax ne ma bu la nit defalee lu baax bu ñëpp teewee wax ko te sama programme laa woote ñëpp wuy si ma am naa droit kon wax ñi nga xamante ne defaloon nañ ma lu baax ñooñu moom maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant Ibra Ndiaye bu baax a baax ah, Père Mamour Ndiaye ma kenn Kumba Sëy ñooñu ñëpp maa ngi leen di bége waaw di la sant bu baax a baax a baax a baax tons yow yow yow gars yi war nañ laa bàyyi xel te émission bi sama mbokk artistes yi laay wax jaar leen fii waxtaan ak tons mu wax leen li mu xam ngeen wax ko li ngeen xam yow ku nekk xam ne da ngaa ñàkk ki ñaan di jàppale gars yi kërug artiste nee naa leen tons moo ñu ko wutal waaw maa ngi yemalu foofu kàddu yi nag xam nga damaa xaw a téeleeral te ba bañ jikkooy dof ji ñëw si diggante bi ma jaxase plateau bi moo tax waaw. waaw euh, <laughs> Bébé Faa yooyu tàggatool yow si émission bi nga bokk de yaa ngi si plateau bi yow it foog nga. ba ngeen nuyoo joxu ma ma nuyoo. non mais di nga tàggatoo yaa ngi doon film. <laughs> waaw nañ jox mi muy nuyoo day tàggatoo moom attaay dong laa ko fi indee waaye ak ak doxalee. <laughs> non bàyyi li ngay wax. baax na donc maa ngi remercier ñëpp et émission bi neex na macha allah ton jaamu gën a xam moom sa kër moom déjà dafa neex ambiance yeeg yi ku nekkee ñëw donc di ñaanal ñànku avancement bu baax a baax a baax waaw yàlla li nga bëgg yàlla defaral la ko si aar beeg yëpp yàlla taxaw la à 100 pour cent di la conseil aussi nga bañ a fàtte bawol fii moom xam nga rek mooy suñu dëkku quoi voilà loolu la woon. waaw jërëjëf BBFA. BBFA kooku moom mooy BBFA nan nga ko waxati woon BBFA. BBFA borom teraanga. teraanga ok. waaw c'est internet bu 28 pro maa ngi nuyu ñëpp di nuyu euh, BBFA encore di nuyu sama invité Ndiankou di nuyu. le président kii bi turub bi nu mu tuddati turub bi. Cheikhouna Diop. turu non turub bi. turubu jeune waaw le président jeune di Bawol ñu koy wax naa Diop maa ngi koy nuyu. moom moom xam nga ay mbiram moom émission bi au début la ko fi waroon a fekk mi ngi nii di soog a teer fin émission la teer kooku après daan koy daan. di nuyu aussi Khadim Diaw euh, moom xam naa ni si la ay parce que jaw la sant xam nga ngëyeen nag jaween moom moom mooy lii. di nuyu sama caméraman ñu naan ko euh, Omar Sarr borom bopp bu rëy bi di nuyu euh, comment dirais te tur bi pik laay wax parce que bëgguma jaar si tur bi ñu ko tuddee et puis muy tur bu baax yaa ma gën a xam di si teg la neen di nuyu képp koo xam ne yaa ngi si àddina bi rek di nuyu tous les artistes comédiens et les artistes comédiennes yi nga xam ne ñu ngi si monde monde bi yëpp maa ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Ndonga Fall mu partagel ma ko ñëpp kon sama gars yi à la prochaine émission numéro 2 Keu Tonche merci beaucoup